tey nag dañu am benn déclaration boo xam ne dañ ko bëgg a def euh, mu lu jëm ci suñu marché bi jëm ci tamit euh, soutenir boo xamante ne ni ñu ngi koy soutenir euh, président de la république ci élection yi ñu jëm. ay marchands ambulants lañ xañ na suñu doole bari suñu temps bariwul waaye ku ñu jàppale si li ñuy liggéeyee dañ engagé ni ñu daan gën a engagé woo jàppale ko ku xam marché xam ni mu demee népp xam li fi nekk engagement bi ñu mën a jël nag te président xam ko mooy ndaw ñu fi nekk. di ay gone bëgg liggéey kenn ku nekk yor sa kër borom kër yi itam fekkee bëgg nañu jàppale ko il faut que mu xool waa marché bi néew ju doole yi fi nekk ñëpp mu mën leen a dimbali fas yéene jàppale ko loolu ñu bëgg. vraiment gis nañu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci Touba ñun ñoo ñu nekk ay ndaw yoo xamante ne ay marchand ambulant lañ te gis nañu lu bëree bëri bëri président mi ngi koy def. mais loolu tamit egsiwul ci ñun te dañoo bëgg tamit lépp loo xamante ne sumb nañ ko ci dëkk bi loolu egsi ci ñun. marchand ambulant buy jaay moom ku ko financé xaalis mu liggéey ndax kenn ku nekk bu nekkee marchand ambulant bëgg naa nekk ab commerçant bu mag wàccee conteneur. mën nañ nekk ci dëkk bi te bëree bëree bëri bëri du xam suñu activité lan la te malgré que ni ay ndaw yu bëgg a liggéey ndaw yu fonk liggéey ndaw yoo xamante ne ni ñu gëm seen bopp lañ ñoo fi nekk. koo xam ne jox ñu la dara da nga jóge sa daara yi ñëw di jaay ba am taabal. ba am ñu si génn yor ay magasin kooku mi ngi woon si boppam di liggéey. saa ñu waxee ambulant dañuy gis ne ci ay coono lañ nekk parce que bëgg nañ ku ñu organiser suñu marché bi te loolu jafe-jafe la euh, bëgg nañ aussi tamit ku ñuy jàppale ci wàllu finance parce que bëri nañu néew doole ñoo xamante ne nii ñu ngi ci ñun te tey bu ñu amoon la ñu bëgg euh, danañ mën a liggéey seen liggéey su ngeen gisee tamit euh, loolu di am loolu mooy jafe-jafe bi te loolu tamit dañ ciy tàllal président loxo mu mën ñu see jàppale. ba ñoo ñu nga xam ne tamit ay néew doole lañ ñu ma leen dimbali tamit ñu mën a téye seen liggéey na mu waree loolu mooy jafe-jafe bi. ku dégg seet see guñ ñu xañ na ñoom bi ñu seet see te waxuñu li ñu mën dégg ñu xam waaye instant bi ki ñu moom la ñuy waxal te li ko defee wax moom bu ko defee incha allah ñu def lañ man rek. gisuñu kenn koo xam ne jugee na ko ku ñëw pour waxtaan ak ñun ci loolu te gis nañ kilifa yoo xamante ne ni tey ñëw nañ waxtaan ak ñun ci wàllu woowu ñu wax leen suñuy doléance wax leen li nga xam ne moom moo ñu métti ginnaaw nag gis nañ ne président mi ngi liggéey lu bëree bëri ci dëkk bi te loolu egsi wut ci ñun loolu tamit dañoo bëgg mu egsi ci ñun parce que ñun it ci dëkk bi lañ bokk ci réew mi lañ bokk te tamit war nañu yëglu suñu bopp xam ne fii lañ nekk. am nañu ni jàppale ci biir ci politiciens yi am na ñu ciy jàppale ndax fii ñëw nañ fi ànd ak bàyyi àll si bàyyi àllaa ngay jàppale waaye nag nañ ko dooleel dooleel na nun ambilaakat bu ko defee nun dinañ président rek leen bëgg mu gagné Touba. am nañ mbooloo mën a sens dara ndax ay nit ñoo nekk ci marché bi après nañ 3000 personnes te ñëpp ku xëy maanaam jafe-jafe yeeg dëgëraay bi mooy waral maanaam nit ñi contre président rek waaye jafe-jafe bi wàññi ko nit ñi bëgg ko kon amal njëriñ nga bëgg ko di. ñu boole suñuy doole ñu nii nañ soutenir président ci élection yi ñu jëm pour mu mën a am ci assemblée nationale li mu ci bëgg mu am ko ci. kenn ku nekk. xam na ku kuñ bëgg ñu jàppale ni nga def bañ jàppale la. ñun nag dañuy ñaan président gagné tey Touba moom lañ bëgg moo ñu indi fii tam noonu man sa ambilaay boo gisee danoo bëgg ñun ñëpp ñu daje ci benn xamante ànd bokk benn say takk def leen bëgg ndax ku ne nekk fii naa kii faral kii laa faral loolu itam du ànd ñun danoo bëgg a ku ànd ak Alaaji Fall woteel président mu gagné Touba. adduna lépp yaakaar ko lal am nañ yaakaar ne nag suñ ko jàppalee xëy na ma yàlla mën na ko may ndam ci yaakaar boobu rek la ñuy demee. képp koo xam ne taxaw nga fii danoo bëgg nga woteel ma euh, président mu gagné Sénégal fii ci tuubaa noonu moom na bëgg moo nu taxaw woote fay sunu lépp indi ko fii woote. indi a ah, dajale Aliou Fall mii ne ko wooteel lu nu gañe ndax tey président saa ñu watee fii ñu naa président gañu gañu Touba gañu Touba lu nu naqari lool la ñun dañu bëgg président gañu Touba ci ñun nag ñu ngi jàppale sax. marché ambulant nag ñëpp jëluma seen engagement parce que comme mbir boo xewee ku ci nekk am nga droit far fa la neex mais ñun ak ñi ñu àndal te ñu mën a déggal euh, ñu ngi leen di woo ci loolu nekkul ne nag far force la ñuy woteel président Macky Sall mais ñun daal man El Hadj Fall maa ngi woo képp koo xamante ne ni tey marchand ambulant maa ngi lay tàllal loxo.